Mm-hmm. waaw jërëjëf ami cher fidèle téléspectateur de Sénégal 7 ñu ngi leen di nuyu kenn kenn nekk ci turam ak santam dal leen ak jàmm ci seen émission bi di les échos du net sur Sénégal 7 nga xamante aljuma bu jot ñu essayé leen rassembler leen bépp actualité rek boo xamante ni xewoon na ci semaine bi indi leen ko nag ba ngeen am ci li nga xamante ni moom mooy la bonne version bokk na ci li nga xamante ni saa su ne moo ñuy soxal alors euh, tey nag li leen nar a xaarandi ci émission bi bokk na ci li nga xamante ni moom mooy l' bi gën a faar ci semaine bi plus dominée ci li nga xamante ni moom mooy cette semaine mooy la politique ba tax na képp koo xamante ni rek candidat nga ci élection présidentielle 2024 yi kenn ku ci nekk yaa ngi commencé def say caravane mais caravane yi am na ay attaque am na ay agressions yoo xamante ni am na ci am na ci sax ay décès yoo xamante ni nemmeeku nañ ko ci ci kàttanu sunu borom dinañ ko leeral eh, ci kanam xanaa buñ ci jógee rek ñëw ci discours bu am solo bi nga xamante ni son excellence Macky Sall yëkkati na ko jëmale ko à la population sénégalaise amoon na ko ak waa BBC loolee nag nekkoon interview boo xamante ni ñu bari ñu ngi ko doon xaar mais am na ci ay kàddu yoo xamante ni jip na ci ñu bëri xaaruñu ci woon euh, loolu donc loolu ci kanam si kàttanu suñu borom euh, dinañ ci waxtaan ak yéen ki nga xamante ni nag moom mooy Idrissa Seck doomam Safi Sewuna mi nga xam la ne depuis papaam di def li nga xamante ni moom mooy politique euh, mi ngi koy gunge waaye ana lan la jël rek adressé ko ñi nga xamante ni ñoom ñooy la population sénégalaise dinañ ki nga xamante ni moom mooy son excellence Macky Sall yëkkati na ab cadeau lañ ko mën a tuddee jëmee ko ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy toute entreprise de la presse euh, fii ci réewum Sénégal waaye cadeau boobee cadeau lan la incha allah dinañ leen ko yaatal yaatalal ci kanam waaye nag beneen tournure la ñu gis actuellement sunu nitu showbiz yi am ko euh, vis-à-vis de la politique bi nga xamante ni moom la ñuy euh, maanaam waajal léegi balaa yàgg incha allah le 24 mars gis nañ ñi la majeure partie des musiciens kenn ku mu far kenn du xam appartenance politique am waaye jamono ji nag euh, kii di Abdou Guité Seck bi mu wanee boppam ñeneen ak ñeneen commencé nañoo wane seen bopp ñooñu ñan lañ ci kanam aussi dinañ ci ñëwit ci kanam xanaa rek ñu daal di koy jeexaleeg rek coow li nga xamante ni mënul ñàkk te saa su ne dañ koy gis ci sunu nitu showbiz yi bokk na ci kii ñuy woowee euh, awa bébé euh, awa Ama ak ki nga xamante ni moom mooy bébé Eva ñoom nag sànnante taraak dul jeex am na ci seen diggante waaye kañ ca dugal nga xamante ni ñu bëri foogoon nañu ne moom ay jotaayam sax du bokk ci ay jotaayu jigéen mooy Sidi Diop donc loolu aussi dinañ leen ko yaatalal ci kanam tout de suite nag avec la complicité de Tuuti tout le temps dañuy ànd bàkk bi daani ñu daal di dikkaat ñu waxtaane ko à tout à jërëjëf foo leen mën a nekk ci àdduna bi ñu ngi leen di dalal jàmm ci seen émission bi di les échos du net sur Sénégal 7 nga xamante ni plaisir bu énorme la am à chaque fois bu ñu leen koy présenté comme ni ñu leen ko waxee woon nag semaine bi li ci dominé bokk na ci li nga xamante ni moom mooy actualité politique waaye nag comme ni ma ko waxee sànq rek caravane yi nga xamante ni jamono ji képp kuy candidat yaa ngi dem rek di woyal sa campagne yaa ngi jóg rek di diktal sa programme ñi nga xamante ni ñoom ñooy sénégalais ba incha allah le 24 mars dimanche ñu xool kenn kenn ku ci nekk programme bi la doy nga daal koy voteel bu ñu ñëwee rek nag ci ki nga xamante ni macha allah moom mooy Ousmane Sonko ak kii di Bassirou Diomaye fay ñoom ñaar kenn ku ne xam na ne seen coalition seen dualité dafa nekk loo seen seen duo du moins dafa nekk loo xamante ni dafa neex sénégalais yu bëri ba tax na eh, gis ngeen niñ ko nemmee woon semaine bi passé bi ñu génnee ñu daal ne dañoo libre kenn ku ci nekk kon maanaam képp kuy militant képp kuy patriote rek sa xol sedd waaye seen caravane ba tey mi ngi wëy di amal ñu ngi koy amal eh, fépp ci réewum Sénégal ndeysaan ñu nga woon nag fa nga xamante ni moom mooy Bignona li tax sax ñu ciy cité boobu mooy message bu foor dafaa jógee message boo xamante ni mu ngi bàyyeekoo ci gémmañu Ousmane Sonko mi ngi xamle ne ñu bëri dañoo jàpp ne fii ma nekk nii di Bignona euh, dafa nekk dëkku dëkku fitna dafa nekk dëkku problème dafa nekk dëkku coow waaye nekkul benn yoon dëkk boo xamante ni noonu ñu koy jàppee noonu la demee waxtaan moo war ñu waxtaan ci suñu biir baalante ci sunu biir waxtaan ci li tey ñu bëgg koo réussir te loolu lenn mayewu ko rek lu dul ñu daal di toog waxtaan kenn ku ci nekk am lu mu bàyyi xam ne le pardon dafa nekk loo xamante ne dafa am importance dans la vie d'une personne alors moom nag woote jàmm la wax beneen bi ci topp mooy ñu bëri ñi ngi naan ñoom ñii di nga xamante ne ñoom ñooy waa Pastef bëgguñu jàmm xuloo ak xeex rek la ñu bëgg mi ngi ci indi sax ay leeral bu yu baree bari moom Ousmane Sonko mi ngi koy xamal ne ñun kenn gënuñoo bëgg jàmm kenn bëgguñoo gënuñoo bëgg réew mii di réewum Sénégal waaye xoqatal geeg fitna yi ak yi nga xamante ne ñu ngi koy teg ci sunu ndodd mooy dakk parce que kenn ku xam na ne ñun duñ ay loolu aussi bokkoon na ci li nga xamante ni génnoon na ci euh, kàddu Ousmane euh, Sonko euh, fële ca la nga xamante ni moo xew woon fële ca Bignona moom ak Bassirou Diomaye Faye yëkkatiwaat na nag joxoñ ki nga xamante ni moom mooy Bassirou Diomaye nee na li tax mu wóolu ko moom moo ko xam li tax mu maanaam am yaakaar ci moom moom xam nekk le candidat parfait parfait pour réew mi nga xamante ni mooy réewum Sénégal parce que nag intention yu noble la am ci réew mi tey it bis bu ñu demee ba jël li nga xamante ni mooy réew mi lépp loo xamante ni rek sénégalais doogoon na di ko mettitlu ci loo xamante ni wàllum injustice la wala wàllum luubal wala lu leerul ci kàttanu sunu borom am nañu yéene leeral ko ba kenn ku ci nekk mën a sentir ne yaa ngi ci réew mi nga xamante ni yaa ko moom muy réewum Sénégal donc leneen lu am solo loo xamante ni nag yëkkati waat na ko ci discours am solo boobu Amadou Ba def na lu ne ngir moom moom euh, Ousmane Sonko ak Bassirou jomaay fay ñu bañ a génn fa nga xamante ni moom mooy prison nee na façon bu ne def na ko lu ne it def na ko waaye nag li ñu naan suul ker du ko teree feeñ loolu moo tax tey yàlla wane ñu daal di génn nara doxal li nga xamante ni moom mooy seen campagne électorale le 24 euh, mars incha allah ñu fas yéene jël nag li nga xamante ni mooy réew mi gis ngeen ko ci image yooyu nga xamante ni euh, kii di tuuti mi ngi leen koy wan mu nekkoon nag ay image yu fort jamono ji nag képp kuy pat patriote rek yaa ngi fas ni wuti sa bale rek parce que euh, kii di Diomaye dafa defoon euh, dafa yoroon bale ci benn meeting donc looloo tax ñenn ñi sax ñi nga xamante ni nag euh, foo dem am na ñu la sopp am na ñoo xamante ni aussi dañuy compte ñu ngi naan est-ce que du nag politique bi raxut nag mystique parce que politique kase bale lu ci wuti donc loolu yëpp bokkoon na ci li nga xamante ni ay temps fort la ci campagne boobu nga xamante ni kii di Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye demoon nañu fa nga xamante ni moom mooy Bignona leneen lu am solo bokk na ci loo xamante ni ba tey waa Pastef la concerné mooy euh, benn agression boo xamante ni bu ñu euh, sukkandikoo rek ci euh, moo Mamadou Lamine Diakité mi ngi xamle ne rek ne dañoo attaqué li nga xamante ni moom mooy seen caravane bi ba am ci ay blessé yu grave yoo xamante ni am na ci ñamu nag joxoñ baaraamu tuuma ka nga xamante ni moom la pointé directement du doigt mooy la maire Omar ndax nee na moom ci boppam moom la joxoñ baaraamu tuuma ne ay nervi ak ay agresseurs yoo xamante ni ñoom ñoo leen attaqué woon te nag duñ ko bàyyi benn yoon dañuy porté ji li nga xamante ni moom mooy plainte waaye keneen koo xamante ni disparition xaw na metti ñu bari euh, metti na sax yi laa wax ñu bari rawatina nag jigéen ñi mooy ki nga xamante ni mooy Aïda Sow moom nag euh, suma assistance la doon liggéeyee dafa def benn malaise euh, ci caravane des femme de Diomaye Faye la bokkoon dafa mujj génn nag àdduna nekkoon choc nag boo xamante ni képp kuy patriote rek choqué na la ñu ngi koy ñaanal fa mu jëm gënal ko fuuf fi mu jóge ci barki Nabil Moustapha leneen loo xamante ni ba tey am na solo wax naa leen ko mu nag aju ci ki nga xamante ni moom mooy son excellence Macky Sall alors moom nag réew mi euh, dañ ko invité woon fa nga xamante ni moom mooy BBC ba mu fa toogee it interview ba nekkoon interview boo xamante ni bu euh, émotionnel la waaye tamit bu bëri ay révélation parce que mi nga xam le ne euh, réew mi di réewum Sénégal incha allah le 2 avril ci kàttanu sunu borom dafa fas yéene daal di quitter su fekkee ne nag au premier tour ki nga xamante ni moo war a nekk président incha allah bu réewum Sénégal fekk na mu passé au premier tour dina ko mën a euh, jox li nga xamante ni moom mooy lenge yi waaye nag su fekkee ne deuxième tour dafa am moom daal ci kattanu yàlla le 2 avril day dem. incha allah donc loolu aussi euh, mel ne am na nag ci sénégalais yi parce que nag euh, li tax euh, émission bi di les échos du am solo mooy les avis de chaque personne dafay compter ci émission bi kenn ku ci nekk bis boo amee rek li nga xamante ni mooy sa point de vue bu adressé population bi wala nga daal di koy bàyyi sur les réseaux sociaux vu que nous sommes sur les réseaux sociaux on est une télévision en ligne donc lépp loo xamante ne rek day bàyyee ko ci internet yi ñun dañuy soxal parce que dañuy wax jox ñoom it ñu wax jox ñu bi discours boobu amee ba jàll ñu bari ci internautes yi dañoo jàpp ne ki nga xamante ni mooy son excellence Macky Sall il est un inquiet donc moom moo tax mu daal di wane ne bëggatul dara ci li nga xamante ni sax mooy réew mi du ci samay kàddu nag internet yi ñenn ñi ñoom ñoo xalaatee noonu ñeneen ñi jàpp ne effectivement parce que dafa nekk ci réew mi liggéey li mu war a liggéey def li mu war a def ak lu luñ ko mën a waxal am na lu bari lu mu changé ci réew mi ñu jàpp ko rek foog ne dafa nekk koo xamante ni dafa insensible ci yenn yi moo tax mu bàyyi leen ak seen réew ñi fa rek ñoom ñoo waxee noonu. donc loolu nekkoon discours boo xamante ni kenn ku ci nekk aussi amoon nga ci sa mot boo mën a rek génne daal di koy étaler ci li nga xamante ni moom mooy euh, les réseaux sociaux leneen nag lu am solo loo xamante ni bi mu ko waxee ñu bëri ci sénégalais yi defar nañu ay taxaw seetlu du lenn lu dul nee na moom amul kenn ku muy demander pardon. parce que lépp lu mu mës def euh, parce que loolu sax li ko jiitu bokk na ci dañ ko posé woon une question par rapport ak manifestant yi mu génn àdduna emprisonnement yu tegalantoo yo euh, yi nga xamante ni ci euh, li nga xamante su son la amoon li mu ci xamle du lenn lu dul mooy nee amul kenn ku muy demander parce que lépp lu mu def rek dafa respecter les lois te ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor wàllu yoon kenn mu cee mus cee contester li nga xamante ni moom mooy li mu def loolu nag bi mu amee mais ñenn ci sénégalais yi ñoom it ba tey ñu ngi jàpp ne non seulement Macky est-ce que dafa dem ba xam ne amatul kenn koo xamante ni. dafa nekk ci ginnaawam ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk à l'étranger ñi nga xamante ñoo ko daan gunge au niveau international euh, ñenn ñi jàpp ne sax dañoo mel ni lu xaw a génne seen loxo euh, ci li nga xamante nii moom mooy gouvernement bi moo tax mu commencé tiit du samay kàddu. encore une fois askan wi ñoo xalaatee noonu donc loolu aussi nekkoon loo xamante ni bokkoon na ci ay temps fort yu ñu mën a nemmeeku ci semaine bi euh, ci ab euh, interview boo xamante ni son excellence amoon na ko ak ña nga xamante ni ñoom ñooy waa BBC. alors bu ñu jógee ci loolu rek dañuy ñëwaat ci ñi nga xamante ni ba tey ñoom euh, ñooy politiciens yi ndax boobu ba tey ñoom ñoo xewle gis nañ ne aussi caravane yi nga xamante ni mu ngi wëy di am. benn par benn kenn ku ci nekk parti boo mënti yore rek yaa ngi jéem a xuus ngir mën a wone sa programme diktal ko sénégalais yi ngir convaincre leen ñu mën laa votel loolu nag ñu ngi xam leen ne ci kàttanu suñu borom tey ji ci àjjuma à minuit lay arrêté campagne bi tey euh, ci ajuma ji à minuit lay arrêté samedi ñu noppalu dimanche ñu vote ji kenn ku ci nekk daal di votel ki la neex ñi nga xamante ni nag daawuñu leen xàmmee daawuñu leen gis te daawuñu wone seen appartenance politique moom mooy artistes yi waaye nag dafa mel nag bi nga ki nga xamante ni moom mooy Abdou Guité dafa wane yoon bi Queen Biz Ndeye Ndack mi nga xamante ni aussi ñoom dañ leen daan gis saa su ne ñuy gën a fës di wane seen appartenance politique wane na ay patriote lañu ñoom mësuñu cee daw euh, yotaa waaye nag ñi nga xamante ni xàmmeewuñ leen ci woon te ñu gis leen bokk na ci Dieyna Baldé Daba Seye ak ki nga xamante ni moom mooy Billy ak sunu yaay mère Diall ñooñu gis nañ ne actuellement ñuy fësal di wane seen bëgg ak seen appartenance politique ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa Pastef loolu it nekkoon loo xamante ni semaine bi nemmeeku nañ ko mu mel ne nag kenn ku ci nekk commencé ngaa wane li nga xamante ni moom mooy fi nga féete ak fi nga bokk. lu amaat solo loo xamante ni euh, gisaat nañ ko ba tey euh, mu nekk nag ay kàddu yoo xamante ni jógewul ci benn euh, maanaam jógewul ci kenn ku dul doomu Idrissa Seck ñu koy woowee. Abdoulaye Seck alors Abdoulaye Seck nag nee na depuis papaam nekk ci li nga xamante ni moom mooy politique bi mu ngi koy gunge depuis 2019 mi nga xamante ni année la woon boo xamante ni ñu bëri amoon nañu yaakaar ne kii di euh, euh, sa Seck amoon na chance mën a nekk li nga xamante ni moom mooy euh, président waaye nag mun mel ne rek ak yi fi jot a xew ah, tension yi fi jot a xew transhumance euh, euh, transition yi nga xamante ni aussi euh, xewoon na fi ñenn ñu ci bëri jàppoon ne Idrissa Seck kenn gunu ko woon a mieux placé pour mu mën a doonoon li nga xamante ni mooy président fii ci réewum Sénégal ndax bu dee xam-xam am na ko su fekkee ni aussi maîtriser réew mi def na ko parce que régime bu nekk pratiquement ànd na ak moom ci li nga xamante ni maanaam ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekkoon ci nguur gi donc am na lu bëri loo xamante ni am na ko ci waaye ñu bëri nee nañ ñi nga xamante ni tey euh, waroon nañ koo doon waaye peut-être doxalin du samay kàddu doxalin tax na ñu daal di euh, amatuñu yaakaar ci ki nga xamante ni moom mooy euh, doomi Thiès Thiaye ji waaye nag benn doomam doomam taawam bu góor di Abdoulaye Seck moom li fi li muy invité te di ci woo sénégalais yëpp mooy ñu jox chance papa ñu jox ko chance parce que intention yu noobul la am ci réew mi te nag ku mën a doxal réew mi la donc chance daal lay euh, dell ki nga xamante ni moom mooy waajur waajuram bu góor bi di Idrissa Seck donc bu ñu jógee ci ki nga xamante ne mooy Abdoulaye Seck rek di doom ci ki nga xam ne moom mooy Idrissa Seck dañuy ñëw nag euh, ci euh, ab accident boo xamante ni ma nga xew woon fële ca maatam gouverneur ba nag génn na accident ba lenn waral ko lu dul benn borom moto Jakarta moom moo génn àdduna ci kaw tali bi ña nga xamante ni nag ñoom ñooy jeunesse ba nekk fële ca Matam dañoo jugoon révolté wu parce que dañoo ne dañoo dégg ay rumeur di wax le ne oto bu ko fiir dafa bokkoo ci oto euh, administration boo xamante ni maanaam dafa bokkoo ci oto administration bu douane donc loolu aussi bi mu amee ñu bëri daal di génn euh, foofe nag ñu bëri li ñu jàppoon mooy fii daal ku fi doon dara kenn du say mbir du mujj fenn su dee da ngaa bokk ci ay njuut njaaj su dee nag doomu baadoo la nga tout le temps euh, say mbir kenn du ci wax donc loolu bokkoon ci li nga xamante ni euh, xale yi dañoo jugoon di euh, révolter wu waaye nag gouverneur ba génn na ba mu génnee xam leen ne loolu ñu doon wax naan oto ba nga xamante ni moo percuté jeune jakartaman boobu ba mu mujj génn àdduna ñu doon wax ne dafa bokk ci administration de la douane du dëgg c'est pas avéré nit la boo xamante ni véhicule euh, véhicule bi mu yoroon c'est privé donc da doon vaquer à ses euh, occupation donc loolu moom moo euh, indi accident boobu waaye le fait que ñu doon jël rek di ko rallier ak oto boo xamante dafa bokk ca douane rek amul benn yoon donc mu ngi woowaat bépp jeunesse bu nekk fale ca diwaanu maatam ci calme ci respect ci li nga xamante ni moom mooy euh, apaiser li nga xamante ni mooy tension ba nga xam ne am na fa jamono ji ngir ñu mën a li nga xamante ni ci kàttanu sunu borom dans les prochaines euh, prochains jours à venir ci kàttanu sunu borom dinañ xool euh, loolee lan moo ko waraloon te mbir ma tamit mi ngi ci loxo yoon donc ñu ngi mastaw ñi nga xamante ni ñoom ñooy mbokk yi ñi kiy génn àdduna te di ñaanal rek. mu yàlla may leen xolu muñ ci barke Nabil Moustapha ñu daal di koy euh, ñëwee rek tëjee ko ci actualité politique yi Mamadou Yatassaye mi nga xamante ni bokkoon na sax ci kandidaa yi nga xamante ni bëggoon nañu euh, bokk ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo jiite réew mi ëllëg moom nag dafa euh, génn àdduna démb ci benn malaise la ñu xamal ne looloo ko tax mu daal di génn àdduna dañuy ñaanal rek képp koo xamante ni mbokkam la ak Sénégal yépp ak képp koo xamante ni rek mu ngi dund ci politique ñu ngi koy ñaanal te di ko mastaw ñu ngi koy mastaw dèjà mais aussi di ko ñaanal yàlla xare ko aljana ci barki Nabil Moustapha parce que nag ko amoon njariñ la ci réew mi moo nekkoon le directeur général d'Aquaterra donc nekkoon aussi koo xamante ni daan def de très bonnes actions ci les sénégalais daan dimbali ñu bëri daan wuy ci li nga xamante ni moom mooy social dañu koy ñaanal rek fa mu jëm gënal ko foofu fi mu jogee ci barki Nabil Moustapha donc ñu daal di jeexaleeg rek nag coowal ñi nga xamante ni ñoom ñooy nitu showbiz yi muy Awa Ama ak ki nga xamante ni moom mooy bébé Eva bébé Eva nag ñu bëri xamee nañ ko ci ki nga xamante ni moom mooy Awa Ba moom mii di bébé Eva. moo génn ci live di jooy di xamle ne kii di aw Ama fu mu ko fekk da koy toroxal bi ci mujj mooy da koo fekk mu daal di dem benn soirée boo xamante ni dafa jëloon taabalam moom ak ay xaritam mu ne ko jógal donc loolu aussi bi mu ko xamlee xamlee aussi ba tey à travers benn appel bu mu doon wuyu en même temps ba li nga xamante ni moom mooy direct am na sax koo xamante ni mi ngi ko doon àttu bëgg fay direct bi mu koy xamal ne bul fay direct bi parce que boo ko fayee di nga ma def lu ma nakari bugguma benn yoon nga fay ko bàyyi ma ma wax li ma metti mu génn benn yoon ci man mi nga xam le ne aussi moom nit la boo xam ne buy wax la ko ñor day jooy noonu la mel ndax dafa sensible euh, ki nga xamante ni aussi moom mooy Awa Ama bi loolu jàllee rek moom tamit def na beneen direct boo xam ne ci boutique gu Fanta Mbuub la ko defee loolu sax tax na kii di Adamo génn daal ne ko loolu waroo ko woon a cautionné maag yow ay mbokk lañu waaye waroo woon a def benn yoon waroo woon a bàyyi benn yoon kii di Awa Ama di toog ci sa boutique di wax ay wax yoo xamante ni dafa insensé. alors moom mii di Awa Ama nag euh, mi ngi xamle ne kii di Awa euh, bébé Eva li muy jooy moo ko xam mooy ay jooy parce que nekk na nit boo xamante ni moom da koy jaxasik ay nit te daan na ko defendre ci côté bu nekk ak ay feccikat waaye feccikat yooyu nga xamante ni yenn saa yi sax da daan taxaw daan ne leen doo leen ko laal ñoom dañ ko daan wax sa bés dina ñëw te bësam ñëw na tey li waral coow li nag ñu ñëw ci tuuti. mooy kii di Awa Ama ab audio moo génn audio boo xamante ni da doon yàq lu mel ne melengaan kii di Sidi Diop lu ne mu wax ko ko waaye li nga xamante ne moom la sénégalais yu bëri surtout internautes yi nga xam ne kaar rek la ñuy topp mooy la fait que mu ne moom Awa amaa ci audio bi mu ciy wax naan sii di Diop da doon liggéey gelam beneen bi ci topp mooy li tax tey mu mere ko mooy gelu euh, Momo Dieng dugal na ko ci sax ne dafa maanaam gelam moo ko bàyyi dem ci moom Dieng donc loolu yëpp nekk ay révélation yoo xamante ni tey euh, jot nañ ko te lenn warul ko lu dul ab audio bu génn audio boobu nag moom mi nga xam ne leen de audio boo xam ne ça date d'aujourd'hui mais c'était euh, audio la boo xamante ni dafa yàggoon mi nga xam ne nag ba tey moom mii di aw ama nga xamante ni bi bébé Eva génnee wax li nga xamante ni moom la ko def génn na moom tamit wax mi ngi koy xamal ne nga bëgg ko ak nga bañ ko yaa ma jaxase sama relation ak sii di Diop su demee ba tey neexatul ba am problème yow mi yaa tax yaa ko def te nekkoo koo xamante ni man kese nga ko def yàgg nga koo def ay nit donc loolu aussi nekkoon ay détails ay problèmes yoo xamante ni kii di Mame Ndiaye Savon sax génn na daal ciy wax ndax mi nga xam le ne ay nit bu ñuy ànd te mënuñoo ànd te saa su ne bu fekkee ne dangaa toog ak nit wax ci lii maanaam su fekkee ne aw amaa dafa toog wax ci bébé Eva ñam toog waxal ñoom dem nettali ko bébé Eva bébé Eva bu fekkee ne dafa wax dara ci Awa Ama ñu jóge fa dem mu nettali ko ki nga xamante ne mooy Awa Ama amatul sens ay nit bu ñuy ànd te wante wonte wuñu te chaque jour problème mën a euh, maanaam problème di am jaratul ñuy ànd loolu aussi nag nekk message boo xam ne ku dul moom sax euh, dafa nekk loo xamante ni lu véridique la sénégalais yu bëri aussi euh, jàpp ne ki nga xam ne mooy bébé Eva dafa ñàkk fayda du samay kàddu nag parce que euh, nan ngay xuloowee ak sa moroomu jigéen ba pare di jooy rek euh, ak di ko fësal ci internet bi bu yab bu yàggee dañuy jàpp ne maanaam dañuy xam ne da ngaa attaque attaqué yi dina yomb bu baax ci yow loolu it bokkoon eh, ci li nga xamante ni internet yi eh, xamle nañ ko doon ko ñaawlu bu baax coow daal mën naa ñàkk lii moo tax ñu bëri eh, di ragal ñi nga xamante ni ñoom ñoo fare ci wàllum showbiz ñu bëri ñu xamle ne sax lii di showbiz amul yàlla amul yonent bi moo tax saa su ne coow du gëj ndax seytaane la ñu àndal donc du samay kàddu nag ñenn ñi nga xamante ni ñoom ñooy seetaan tey commentaire sur les réseaux sociaux ñoom ñooy waxee loolu en tout cas bokkoon na ci li nga xamante na tey nekkoon xam ne ñu bëri ci sénégalais ñu ngi koy ñaawlu ci showbiz diggante Awa Ama ak bébé Eva alors amis chers fidèles téléspectateurs fii la ñuy ndar keppee xibaaru ay bés yi nga xamante ni génnoon na fi ci semaine bi ñu bëri nag xam nañ ne euh, parfois dañuy am jot mën a lépp am na ñoo xamante ni parfois du ñu am jot pour mën a xam euh, du lundi au dimanche lan moo xew donc loolu rek moo sabab émission bi les Sénégal 7 di leen ko jox nag euh, à chaque fois télé bi nga xamante ni da di jox toute l'actualité à temps réel ba kenn ku ci nekk mën cee am li nga xamante ni moom la bonne version merci à tuuti mi nga xamante ni moo féete woon ci xarale gi ñu ngi koy jaajëfal te di ko kontaanee d'ici là portez-vous bien mais restez scotché ci li nga xamante ni mooy les programmes de Sénégal di si au d'ailleurs foo leen mën ti nekk ñu ngi leen di ñaanal jàmm yàgg yokk tekki jariñu ci barki Serigne Saliou jërëjëf et bonne fin de soirée bye bye.